ñu kontaan ci loolu parce que loolu macha allah bu ko xale yi déggee dina tax lu bari kenn du leen ci dugal parce que li ñuy wax en général problème mënul régler problème parce que cigarette problème la drogue problème la leneen problème la ba nga xam ne bu fekkee ne da nga nekk ci diggante ñu ne la jëlal nangam day tax nga fàtte loolu ay mirage la rek te dafay loolu moo sànk suñu doom yu bari ñu buggoon nag genre témoignage yi ñi nga xam ne ñu ngi drogué wu wala ñu ngi tux cigarette wala ñu ngi prostitué wu ñu joxe ay témoignages yu mel nii wax tous les inconvénients yim leen di jural parce que cigarette mënul régler problème c' est pour un temps très court boobu moment bi nga koy tux ça te fait oublier mais bu amee quelques minutes rek après tu reviens ci ci ci cigarette bi. te dépendance doomu aadama yàlla daf ko mooñe noo xam ne bu xasee am dépendance ci lu lépp lu mu munti doon rek daf koy sonal te pour s'en débarrasser c'est pas facile du tout xam nga moom il a dina crever sa budget sa santé ak sa lépp parce que xaalis bi ñu koy jëndee xaajoon na ci kër ga bu fekkee nga nekk père de famille tu préféreras fumer ta petite cigarette kër di ko joxe nit ñi di ko lekk te xam nga loolu c'est un problème ñuy ñaan yàlla cri du cœur bi ba nga xam ne ku ci bëggoon a tàbbi sax doo ci dugg parce que drogue cigarette baaxul dépendance ak lay indi te ça ne règle aucun problème la boo koy kii moment d'euphorie bi bu passé rek nga redescendre sur terre bëgg ko defaat kon ba nga xam ne kon amul njëriñ parce que dina yàq sa santé dina yàq sa bopp dina yàq sa virilité bu dee góor da ngay dem ba xale yi ti teel tëlee drogue bi ak cigarette yi moo leen ko yóbbee mooy ñaan yàlla lii c'est un cri du cœur boo xam ne ne ko xale yëpp dégg xam ne amul njëriñ baaxul te en général les guérisseurs qui te disent que mën nañ la wax pour nga bàyyi ko new ma du dëgg de mais le plus souvent c'est pas vrai day fekk nga nga nga nga dem ci ba nga xam ne boo ko deful sax tu deviens malade xam nga loo xam ne nag da ngay jël sa xaalis di ci def muy yàq sa santé di yàq sa esprit yàqal la sa àdduna vraiment loolu euh, yal nañ ci yàlla musal te xale yal nañ ko dégg ba nga xam ne ñu xam ne problème mënul régler problème problème problème la drogue problème la cigarette problème la loolu yëpp mënul régler problème daf lay yokkal problème indi la ci dépendance dangay dem ba yow boo ko deful sax da ngay mel ni ku katakay ni mu jaral la lu ne xëy na cigarette sax amaana yeggul foofu mais les drogués boo gisee ñuy euh, tafu nit ñi di rey nit ñi di agressé nit ñi parce que bu ñu tolloo ci manque rek dañuy mel ni ils ne sont plus eux-mêmes il faut ñu rey nit wala ñu def dara lu bon pour mun a am saa même bu ñu naree rey seen yaay wala seen papa sax dina leen ko jaral mais nañu am xaalis bi ñuy jënd ci drogue bi kon nag na si ñëpp bàyyi xel cigarette amul njëriñ drogue amul njëriñ leneen amul njëriñ yal nañ ci yàlla musal suñu doom yi yal nañ ko dégg ba tax vraiment ku ko doon defit nga bàyyi ko ku ko deful woon boo amee problème ñu ne la tuxal cigarette day tax nga fàtte c'est pas vrai nañ ko bàyyi bu ci kenn dugg parce que ku ci dugg problème kese kese kese la lay indil. moom mi koy def nii di def témoignage bi ñu ngi koy laaj ndax feebar na mu ne feebaru ko feebaru ko ñaanaluñ ko ko yàlla mais bu ko yàggee def au bout d'une dizaine d'années vingtaine d'années dina attaqué say poumon nga am ay problème te àddina jaru ko nga nekk ndaw mu yàq sa àddina yàq sa euh, euh, virilité vraiment dara dara jaru ko parce que nicotine bi ci nekk goudron la te dafay tafu ci sa dënn te boo ko yàggee tux da ngay am sa xat soo xam ne kenn dootu ko mun a faj boo gisee un bu ñu la wonee say poumon da tiit xam nga loolu problème la te feebar la te boo ko yàggee def au bout d'une dizaine d'années rek di nga commencé di flancher kon nag yal nañ ci yàlla musal xale yi bu ñu essayé drogue bu ñu essayé cigarette amul njëriñ problème kese la leen di indil mais le plus souvent ay àndandoo yu bon ñoo la jikki naan booy defal lii soo ko deful ñu ne la innocent nga nga nekk innocent te wér am sa lew gi yaram moo gën nga nekk guerrier te dee xale yi nañu gëm loolu cigarette mënul régler dara dara dara drogue mënul régler dara nañ ko bàyyi waaw may yaakaar ne xanaa ñëpp dinañ ko dégg vraiment c'est un cri du boo xam ne man mii sama tien moo tax ma di ci wax suñu doom yi yàlla nañ ko dégg yàlla bu ñu commencé drogue yàlla bu ñu commencé cigarette loolu yi buñ ci jëm leen baaxul day yàq seen santé may yem fii ba beneen yoon di remercier tous les internautes la qui nous suivent avec un très grand intérêt